D'accord. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. téere boobu boo ci demee dafa indi turu ki jàngal Cheikh Tidiane alquran pour wane ni dafa jaar ci yoon wi nit ñi jaar muy Seyidi Abi Abdillah Muhammad ibnu Hamad Tidjani kooku moo jàngal Cheikh Sidi Ahmad Tidjani alquranul karim bii ñi jàng baqara ba minal jinnati wan naas Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu at mi mu gane jamono at moomu mooy tombeek bi yonent yàlla Muhammad gàddaayee ba madi makkatal mukarrama dem madinatul munawwara ba mu teg junniy at ak téeméeri at ak juróom fukki at xam nga loolu bëri na. mille cent cinquante ci hijriya fanaa su ma juumul mooy tolloog mille sept cent trente sept. waaw su ma juumul. falaalla dégg nga moom lay tollool ci euh, euh, grégorien bi waaye Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu xam nga boo demee borom kashful xijaab defe naa euh, Seyd Ahmed Sukayrij daf ko wax mu ni. at mi mu gane jamono sax man la parce que boo bindee mille cent cinquante boo demee di nga eh, Seydi Ahmed Sukayri ci kashful xijaab yi mu wax mu ni boo bindee Ahmada Tijjaani sayyidul awliyaa'i wa ahmaduhum lillahi azalan boo ko bindee nga xool poids mystique bi dafay tolloo ak mille cent cinquante net du ëpp du yées maanaam Ahmed Tidiane yi Seyd Ahmed Tidiane yi Seydul Awliyaa yi mooy sang mboole nitu yàlla yi ku mu nekkul sa sang da amul tomb wilaaya waaye bu fekkee am nga tomb wilaaya mooy sa sang ci yàlla hmm? waa amul werante wa ahmaduhum te it moo leen gën a santu lillaahi ci yàlla azalan loolu du tey yàllaa ko dogal gis nga boo bindee loolu nga wàññi ko dafay tollook at mi Cheikh Seydi Ahmed Tidiane yi gane jamono muy mille cent cinquante boo bindee baatu mawlidul xatmi mawlidul xatmi mawlidul xatmi boo ko bindee nga wàññi ko poids mystique bi moom itam mille cent cinquante lay tollol pour wane ni Cheikh Sidi Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu taarixu juddoom sax dafa am ay njàngat yu rëy rëy rëy rëy rëy yu ci am mais xam nga le plus important mooy gannaaw ba mu juddu dañ ko teg ci yoon dugal ko ci daara toqi ko ci alquran Cheikh Tidiane bi muy mokkal alquran mi ngi ko mokkal ci juróom ñaari atam. sept ci la xam nga at yi ñuy dal ci daara. Mhm. mooy juróom-ñaari at. waaye cheikh bi muy wattu alquran te gis nga lii ñu ko wax du ñu ay tijaan par parloo wuñu dañu wax yàlla wax. Mhm. dañu ne cheikh bi muy wattu alquran juróom-ñaari at la boo demee borom jawahir noonu la ko waxee. te li ci gën yéeme daf ni noonu la ma ko Cheikh Tidiane waxe moom ci boppam mooma ni bi muy mokkal alquran booba juróom-ñaari at la am wa xafida alqurana li li li saabici sinnihi ala ma axbarani an nafsihi borom jawaahir noonu la ko waxe nee na cheikh wattu na alquran ci juróom-ñaari atam te loolu moom moo ma wax ni moom bi muy wattu alquran booba juróom-ñaari at la boo demee borom munyatul murid gis nga daf ko woy daf ni wa xafida alqurana li sabci sinina an cheikhihi alaalimi di diini almatin gis nga cheikh Sadama Tijaani bi muy wattu alquran lii nag buñ koy wax c'est pour tout simplement encore une fois inciter la jeunesse à ce que ñu dem jàngi alquranul karim ñi ngi wax sànq ci ay affaire de métier ñi ngi wax sànq ci ay affaire de dóorwaar am réew moo munta dem sans la promotion des métiers ça c'est pas possible réew yu développé ci àddina yépp dañu promouvoir métier yi njàng mi sunu système éducatif bi lii parenthèse la na ko président Macky Sall dégg gis nga sunu système éducatif bi c'est un problème parce que dafa gudd dafa yàgg te amul njariñ il va falloir ñu promouvoir les métiers xale yu mën dara ci seen loxo yi mhm. loolu mooy développer am réew ma tëj parenthèse boobu gis nga Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu bi ma amee juróom-ñaari at ci la wattu alquranul karim mokkal ko rip wattu goo xam ne bokkul ak nii xale yi di wattoo tey alquran nga xam ni léegi wattu alquran gi léegi dañ ko def business mooy lan yow doo nekk sax jàngalekatu alquran alquran yitteelu la ñoru la dangay ngay dem jël jël sa benn kër di ko loué force ñaari oustaz di leen fay par weer di former ay xale pour pour que uniquement ñu mokkal alquranul karim après yow nga dajale xaalis bi di fayeeku def ko ci sa poche après nga dem liggéeyal diine ak tasaare l'islam booba dara ñorul la ci saxal fi alquran booba dara ñorul ça c'est pas important le plus important mooy ñu fexe ba ginnaaw ba alquran sax ci kaw suuf munta am lu dul ni dañ koo jàngal xale yi Cheikh Tidiane juróom-ñaari atam ci la wattu alquran te léegi da ngay gis taalibi tijaan boo xamante ne bi ni moom nee na taalibi tijaan la foo ko fekk mi ngi gàddu kurusam te aaya alquran bu mu wax yàqu ko ça c'est un problème fondamental ci tijaaniya parce que nag man na ngeen ma baal c'est-à-dire man mënu ma def discours kii nii c'est-à-dire man discours bu may wax hmm. dama bëgg mu nekk lu instructif parce que ñun mënuñu ne ay tijaan lañ Cheikh Tidiane musique suñu sëriñ mokkal alquran ci juróom-ñaari atam yow nga ni tijaan nga te yow alquranul karim ji mënuloo ci wax ñaari laaya yu jub loolu c'est contradictoire beneen bi ci des li gën yéeme ci euh, Cheikh Tidiane ci juróom-ñaari atam ndeysaan gis nga bi mu wattu alquran ci juróom-ñaari atam ci biir juróom-ñaari at yooyu aj na ci màkka juróom-ñaari yoon te at mu jot yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu salaam mooy ñëw jàpp ci loxoom ànd ak moom tawaaf dox safa ak marwa taxaw arafata def yi ñu war a def yëpp indiwaat ko loolu ki ko nettali moo di faqihu nadifi daf ni lahu xijajun sabrun li saabi'i sinnihi wa itqaanu qur'aanin liza sinni musjala Cheikh Seydi Ahmed Tijaani radiyallahu taala anhu lahu amana xijajun ay yooni makka sab'un yooyu juróom-ñaar la li saabi'i sinnihi te booba ma nga am juróom-ñaari at wa itqaanu qur'aanin Cheikh Tidiane bi muy wattu alquran di ko mokkali rëbb nee na loole mus jalal dañ ko enregistré li des sinni ci juróom-ñaari atam kooku nag moo tax gis nga boo demee ci biir tariqaam dafa bokk ci charte tariqa bi et puis c'est dañ lay wax ni la yow mi jàpp tariqa bi aqallu maa yujzi ul qaari'u fi l yawmi xisbaani li gën a néew ci li nga xam ni yow mi jàpp tariqa tijan war nga di ko jàng alquran par bis mooy ñaari xisbi alquran chaque jour chaque jour ci charte yi kooku cheikh omar radiallahu taala anhu boo demee ci téere bi mu taarif ci tariqa bi bi a siiw di rimaahu xisbi rahimi boo ci demee dafa wax mu ni gis nga yow taalibi tijaan bi jàpp yurdu tijan te doo jàng alquran sa xol du gaaw a takk du gaaw a am safara yëg-yëg bi du la gaaw a jege mukk alquran ji nañ ko bàyyiwaat xel parce que nettali naan Seydi Ahmad Tijaani yi wattu na alquran ci juróom-ñaari atam yam ci loolu wax dëgg yàlla gàtt na ba mu ëpp nag bu ko defee nag li gën a yéeme mooy bu doon dafa yem ci alquran ji kese mais déedéet xam-xam yii tax nit mën a xam waxu yàlla ji mboole xeeti fànn yooyu benn bu ci nekk Sidi Ahmed Tijaan yi doyloowul ni man sëtub yonent bi la alayhi salaatu salaam déedéet hmm. parce que nag li doon wax gis nga loolu euh, vous la jeunesse euh, réveillez-vous ay man nangam la ay man nangam la c'est pas ça le plus important hmm. être fidèle au foyer des ancêtres ce n'est pas en conserver les cendres mais en disperser les flammes sama maam moo taal taal bi nga ñëw boof ci kaw taal bi ku ñëw nga rong rek mat ni ko toppal fële na sa maam taal amul solo fexeel ba fu takk-takk bi àggul nga takku taxaw ba mu yegg fa loolu mooy farata il faut que ñu bàyyiwaat xel ci loolu parce que nag diine noonu lañ koy liggéeyalee mhm. bu ko defee nag Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu fànni xam-xam yi nga xam ni benn bu ci nekk mooy tax nga mën a xam wax yàlla jeg wax yonente bi alayhi salatu salaam dama ni benn bu ne daf ko dem jàng am ci ay sëriñ gis nga laxdari bii ngeen di dégg ñu di ko jàng ci fiqhu Malik Cheikh Tidiane da koo jàng am sëriñ mu jàngal ko ko risalatu ibnu abi zeydin al qayrawaani bii ngeen di dégg Cheikh Tidiane daf ko lii may wax yëpp bu ngeen demee mi ngi ci jawahir al maani te xam nga li ci gën a yéeme Cheikh radiallahu taala anhu bi mu demee ba nga xamante ni bii ni daanaka kàllafagul ay fukki at ak benn fukki at ak ñaar fekk na li ñuy jàng ci ilmu zahir yëpp jàng na ko wattu na ko xam na ko mais yamul ci loolu da ci daan eh, eh, jokkaloo ak daan ci weccoo ak ay boroomi xam-xam yoo xam ni mën nañ koo jur ndax loolu mooy wéral xam-xam mhm. afta wa darrasa wa dalika ala sigari sinnihi naam wa nazala Cheikh Tidiane afta ubbee nekk mufti wa darrasa jàngale na nekk mudarris professeur te wa dalik loolu ba koy def ala sigari sinnihi booba kallafagul mu ni naam wallahi loolu dëgg la mu ni wa nazala Cheikh Tidiane bi muy mbëkkanteeg borom xam-xam yu mag yi wallahi booba ala sigari sinnihi booba kallafagul loolu li muy wane mooy lan il va falloir aussi vous la jeunesse ngeen xam ni dara weesagul il faut que ngeen nangu ngeen jàng parce que tam gis nga su ngeen jàngul coow li mooy bari rek réew mi yi ñuy jooy dañuy gën ko ne di ko joy rek loolu munul ñàkk beneen bi ci tegu Cheikh Salama Tidiane bi mu demee ba am 16 ans way juróom bu góor daf ko takkal soxna so waaw daf ko takkal soxna waaye nag ci at moomu ci yàlla dogal way juróom bu góor ak way juróom bu jigéen ñoom ñaar ci lañ bokk génn àddina ci benn bés Cheikh Tidiane teel naa doon baayoo Cheikh Tidiane teel naa doonub jirim waaye ànd ak loolu yépp fit wa ak bëgg yàlla da koo bawul benn yoon te yont yàlla Muhammad musul tàqali moom mu dem ba yëg ni li mu jàng ci ilmu zahir nii muy zawahiru la le côté apparent des textes la mu dem ba yëg ni lii seddul xolam taxul mu am li mu bëgg mu jóge xam nga nu mu def fépp fu mu dégg ni fii daal nitu yàlla ma nga fa d'abord sax li mu njëkk def mooy soxna si la njëkk a yeewi moom Cheikh soxna si la njëkk a yeewi Cheikh Tidiane kuñ koy tëkkaleel dan lay nax rek te waxuma waxu maqaama waxuma waxu wilaaya di point de vie social ni mu doon dundee kuñ ko ci tëkkaleel boo ci nattee sa bopp xam ni du sa morom dafa yeewi soxna si nee na bëgguma la ameel àq dama nekk ci yoonu wut yàlla ak xam-xam te loolu li mu laaj ci concentration ak jot wax dëgg yàlla mënul ànd ak di toppatoo mbiru soxna daal di koy yóbbal jox ko alal daal di koy ñaanal yeewi ko soxna sa daal di dem Cheikh Tidiane continuer yoonu xam-xamam ba am 21 ans at mi nga xamante ni bii nii pratiquement ñun ci la ñuy dugg université at moomu ci la Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu am agrégation ci mboole xeeti xam-xam yi Sénégal nag dañoo gëm diplôme moo tax duñ dem fenn diplôme amul benn njëriñ compétence moo am njëriñ nit li nga mën ci lañ la war a natt mais pas liy seede li nga mën nit mën naa indi luy seede lu mu mën te fekk moom mënu ko. jërëjëf. toor fa kala wax ji nit. mën naa indi luy seede ak luy wane ni moom mën na nangam te buñ ko nattee fekk mënu ko Oustaz Ahmed Fall at Tijaniya foofu ngay teg sa loxo am na solo